lañ doon taxawal ba ndog boobu fekk leen ci ñu fàttali ne aussi am na cinq blessés aussi ci ci ci wu armée bi muy li nga xam ne ni lu tiis la door seen waaw euh, c'est vrai ñu ngi leen di massawu parce que opération armée mënul ñàkk ay collatéralité mort blessé euh, notamment population déplacée tamit ci la bokk parce que à la frontière gambienne bëri na ay population yoo xam ne dañ leen déplacé du fait de ce conflit mm-hmm. donc genèse euh, bi def naa ñëpp xam nañ ko mm-hmm. mu ngi juddoo ci l'histoire de la coupe illégale de bois mm-hmm. ak trafic illégal de bois bi nga xam ne dafa am ci diggante ñaari frontières ba noppi ay autorité ci ñaari dëkk yi Gambie ak Sénégal impliqué wu ci gëm ci ba bi ci euh, faction Salif Sadio duggee euh, parce que ñoom tamit dañ ci am intérêt parce que ñu ngi ci trafic bois bi biñ ci duggee euh, rey ci ñetti militaire jàpp ci juróom-ñaari militaire otage mu nekk euh, une énième fois euh, que armée di subir benn affront boo xam ne chaque fois autorités politiques yi ñoom ñooy retenir armée dans leur opération de démantèlement et de ratissage des bases rebelles donc parce que quand même am na moyen sécuriser suñu intégrité territoriale Euh, jamono yële il quelque mois. defoon nañu ay opération de ratissage. démanteler ay bases. Mmh. ils le font de temps en temps. Mmh. mais souvent su demee noonu. Mmh. les négociation reprennent le relais. ba nga xam ni armée day day bàyyi noonu. loolu nag un militaire type du ko gënal. mais un homme politique ki gère une situation comme ça. wala un chef rebelle euh, qui peut se tirer d'affaire euh, par voie de négociation. ñoom dinañu fexe toujours mm-hmm. euh, ni ñuy jubóo mm-hmm. donc euh, mais cette fois-ci je crois que dafa am lu changé mm-hmm. parce que quand même euh, dañ ci toftal benn communication bu humiliante ñu wone ay soldats yu ñu ligoté teg leen ci suuf Salif Sadio def conférence de presse boo une certaine presse internationale di def ay interview di def communication di poser ay conditions ba libération am ci léegi loolu ñu ñi ko def ñooñu c'est des gens d'armes ay ay takk der lañu ay militaires lañu yoo xam ni ils sont aguerris donc léegi euh, maslaa bi amoon ak gëm bi ñu gëmoon ci yenn yi je crois que loolu daf ko jox un coup d'arrêt daf ko dakkal léegi il est question de le cerner pour régler problème boobu je crois que euh, de façon définitive parce que conflit ñaari solution rek la am solution politique solution militaire léegi solution militaire qui pose acte de guerre mhm. moo ko créé parce que bu ñu reyee suñu suñu suñu ay ay soldats mhm. euh, jàpp suñu ay soldats mhm. je crois que riposte militaire lu ñu waroon séntu la moo tax dina ma jaaxal sax Saliou Sadio xaar fa loolu parce que moom xam na ni euh, euh, riposte militaire dina ñëw certainement il s'est expliqué depuis longtemps ba mu defee conférence de presse man pour man man de bu doon moo doon moom damay pare ci conférence bi rek daal di wut fu ma jëm seey xamoon na ni dana ñëw armée du tëb a tëb rek attaqué de façon euh, euh comme sax parce que lii opération bu ñu préparé la coordonné ko donc léegi ñun ñu ngi suivre avec beaucoup d'intérêt évolution situation bi foofu donc mu am benn mort euh, c'est normal parce que c'est la guerre c'est la guerre ratissage la pilonage la tu donnes des coups tu reçois des coups donc euh, mais je pense qu'au bout de cette opération danañu pacifier euh, euh, zone bi nga xam ne moom la ñu euh, seq ak Gambie maanaam zone Casamance bi leru ak Gambie ba Kolda parce que bu dee trafic de bois bi la ñuy topp côté Kolda bi sax la ëppee dañ ko fay jëlee ñëw indi ko ba ci frontière Gambie pour mën ko écouler donc le long de la frontière gambienne jusqu'à la région de Kolda la ñu war a sécuriser ba noppi euh, force reste à euh, l'armée mm-hmm. ci zone boo xam ni euh, zone de rébellion la mm-hmm. donc opération bi rebelles yi ñoo ciy perte parce que on l'armée et les autorités ont fermé les yeux mm-hmm. sur le trafic de chanvre indien on a fermé les yeux sur le trafic de bois on a fermé les yeux sur le monopole dans le commerce du cajou am na ay zones yoo xam ne jigéen ñi bu ñu fa demee di wut cajou sax dañ leen di jam pour mu nekk sauvegarder euh, euh, rebelle yi mm-hmm. donc loolu dootul ay revendication politique wala indépendantiste mm-hmm. mais c'est simplement du banditisme armé mm-hmm. boo xam ni dañ ko war a lakkal donc euh, Casamance ay doomu Sénégal ñoo fa nekk ñu bëgg a jàmm yelloo jàmm mérité jàmm je crois que bëri na ay factions rebelles yoo xam ni yàgg nañ leen woo fii ci négociation am na ñoo xam ne ils ont déposé les armes Euh, la majorité, je, veux, je peux dire 90% mhm. euh, déposer les, mhm. les armes. Mhm. Donc, am na ñoo nous euh, sur le plan politique, nous avons am waxtaan ñoom parce que nous avons une conception de la, de la Casamance de, de, comme territoire autonome, de faire ancrer dans l'histoire. Parce que euh, colonie portugaise, là il y avait des engagements de part et d'autre. Euh, ont-ils été respectés N'ont-ils pas été respectés nekk -hmm. on ne doit plus revenir, selon moi, hein, ça c'est mon opinion personnelle, mhm. sur les frontières héritées de la colonisation. Mhm. ak lu ñu aberrant aberrant bu doon loolu kon Gambie mhm. du nekk ci biir Sénégal. nga traverser benn dëkk. pour pour sa continuité territoriale nga jot traverser Gambie dugaat Sénégal. génn génn génn Gambie dugaat Sénégal loolu. loolu c'est des frontières héritées de la colonisation mm-hmm. donc jàmm moo tax ñu maintenir ko mm-hmm. donc ñi nga xam ne aussi même s'ils ont raison sur le plan historique mm-hmm. mais bu ñu bëggee étendre le territoire de la Casamance nga xam ne ñoom lañ ko tuddee le grand Ngaabu nga xam ne am na benn partie bu nekk Gambie ba noppi dafa prolongé wu ba Tambacounda ak benn partie bu nekk Guinée-Bissau léegi day doon comme le problème kurde bi nekk euh, en Orient nga xam ni lii muy Irak lii mu ngi Turquie mhm. lii mu ngi Iran mhm. ils sont partout mhm. ils sont à cheval entre des frontières jusqu'en Syrie il y a un Kurdistan donc euh, euh, gisoon nañu Irak par exemple même Irak Irak kese kese kese ñaari faction kurde yu wuutee ñoo fa nekkoon comme faction rebelle yi fii rek y le camp de de de Massoul Barzani nga xam ni euh, moom dafa jiboo woon ak nu mu tuddati Saddam Hussein ak Jalal Talabani mhm. nga xam ne moo nekkoon un peu ci côté côté côté Turquie mhm. donc ay opposants politiques la ñu woon mhm. pour un même territoire donc lañ noonu la ñu gisee Casamance aussi il y a des factions rebelles il y a il la faction de Salif Sadio il la faction de César Atoute Badiate qui était active moom événement boo fa bayo ci moo tax mu immigré dem Guinée-Bissau donc euh, dafa dafa dem mais ñoom ñaar ñoo desoon ci conflit bi mais sinon ñoom euh, ils se sont pacifiés ba le chef de guerre nga xam ni c'était le responsable de l'armée de l'armée du MFDC euh, Kamougué Diatta que je respecte beaucoup moom il a il opté pour la paix te ñooñu c'était l'aile militaire de du MFDC ñooñu dañu amoon des revendications politiques léegi nag Sénégal euh, autorité li ñu war a def vraiment régler un l'enclavement de la Casamance le développement de la Casamance. Mhm. trois ñu instaurer fa justice. Mhm. parce que gis nga dëkk. Mhm. Euh, ñi fa nekk. ñoo gën a prioritaire pour jëriñoo ci koom-koom gi jóge ci dëkk bi. dañuy gis d'un mauvais œil ñu ñëw de l'extérieur. je dis pas de l'étranger hein, de l'extérieur de la région ou des régions parce que léegi dañ ko scindé en plusieurs régions Abdou Diouf moo Casamance mhm. région de Ziguinchor région de Kolda mhm. après ñu yokk ci Sédhiou et cetera mhm. pour qu'on dise plus la Casamance mais c'est un même territoire pour man c'est une même région donc il faut que euh, équité en matière de politique de développement local et de politique tout court pour ñu développer quand même na mën na nekk un pôle de développement parce que am na ay ressources de qualité mm-hmm. donc am na am na am na une mer euh, euh, assez poissonneuse mm-hmm. des terres très fertile mm-hmm. de l'eau en abondance donc mën na mën nañ ko pacifier ba noppi jublu ci développement wu Casamance waa Casamance mérité nañu un mieux-être mérité nañu jàmm donc il n'est pas euh, euh, euh ñuy continuer di entretenir une rébellion armée par voie de négociation nga xam ne bu ñu ko mënee éradiquer ñu bàyyi ko foofu demee bu defaroowaat euh, ça va être un cycle infernal je crois que on va on doit rompre ce cycle pour que pour que pour que jàmm euh, descasement te loolu noonu laa jàngatee. Mhm. Euh, mission de pilonnage et de ratissage yi nga xam ne moom la armée commencé commencé entamé. Mhm. Euh, ñu ngi ñaanal ñi ci am ay ay dégâts collatéraux. Mhm. mais di ñaan surtout qu'au terme de cette opération que la paix revienne de façon définitive.